رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة الأوقات في أيام رمضان فيك عبادة وصيام فدموعنا بخدودنا رقراقة تسقي قلوبا زانها إسلام تسقي قلوبا زانها إسلام رمضان يا رمضان يا رمضان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 adada ma taalamahu min bida'i lamri ila muntahahu wa ala alihi wa sahbihi bukuratan wa asila taala wa mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokki seetaan ak déglu jotaayu ramadan dellusiwaat nanu di àndaat ak ci beneen jotaay ci jotaayu di ñaan yàlla borom bi tabaraka wa mu defal nu ak dégg gu ànd ak topp lépp lu nu wooragum ñu ngi ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa mu nangul nu ko lu nu desendi ñu ngi ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu may nu wér a kàttan gunu ko wooree te bu nu ko wooree mu nangul nu ko incha allah bu ñu jeexalee waxtaan wi ci dundu amir muminin seydna amar ibnul xataab danañ ñëw ci xel-xelu gannaaw ba ñu ñëw ci suukaru koor suukaru koor tey incha allah suratu duha la ñuy waxtaanee ngëneelam suratu duha wa duha wa leyli ida saja riwayatu xafs wa duxe wa leyli ida saje riwaayatu warsh incha allah bu nu indi naafila gi yëkkati jataay bi incha allah mbokk yi démb ñu ngi woon ci dundu amirul muminin seydna omar gannaaw bi yenent bi sallallahu àdduna lu doon taxawaayam waxoon gi saxaaba yi jaxasoo moom mu bokkoon ca ñooña nga xam ne jaxasoom demoon na ba yegg ci mu ne naafeq yi ñooy wax ne yonent bi dafa génn àdduna génnul àdduna moom sallallahu alayhi wa daa def ne rek yonent yàlla Muusaa nam defoon euh, ñeen fukki guddi yooyu mu wéetali woon boroomam loolu la yonent fi def lu ni mel rek day dellusiwaat te bu dellusee dana teg ay daan ñi nga xam ne ñoo doon wax ni dafa faatu waaye loolu yëpp ci jaxasoo gi la woon ba ki delloo si xelam delloo si xelu saxaaba yi bari ndax jaxasoo gi demoon na ba yegg sax waxuma waxuma doomu aadama yi mais bàyyi ma yi sax demoon na ba jaxasoo ga yegg fa waaw ndax xaswa wax nañ ne biñ ko biñ waxee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna dafa bàyyi lekk naan ba ba muy faatu lekkatul naanatul ngir yëg génn àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm, Abdullah ibn biñ ko tàggee yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko faatu na dafay lox di lox ba paralysé wératul ba faatu moom it Abdullah ibn Zayd biñ ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na fekk mi ngi ci toolu mam ca biti Madina fa lañ ko ko tàggee mu ne yàlla tàggekat bi lii mu wax ndem dëgg la sama bët yi muur ko yàlla bu ma gisati ndax di xool te gisuma yenent bi bët amatul njariñ ba muy daaneel ñaanam la yàlla silmaxal ay bëtam gisatul ba ba muy faatu ngir wan ne rek lu diisoon la génn àdduna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam lu diisoon la ci saxaaba yi waaye ki leen delloo si dalal leen mooy sayyiduna abubakrin siddiq radiallahu taala anhu xutbaam boobu nga xam ne bi mu ko daanelee sayyidna omar ma taxawoon bañ na du toog bañ na du toog sayyidna abubakar jógee na sunu aali ñëw jubal si jàkka ji fekk ñëpp ngi sa ngéem ngay jooy ñee nga tëdd fële ñee nga xalangu ku nekk façon ba ngay def mu romb leen dugg ci biir néegi Aïcha fekk yenent bi fiñ ko muur mu muri ko fóon ko nday joor ak càmmoñ wax moom kàddu yam wax ak moom daal di génn yéeg ci kaw minbar bi ñëpp jàkkaarloog moom Seydina Omar mu ne ko toogal Seydina mar lànk ne du toog Seydina Abubakar ne Seydina Omar toogal mu lànk ne du toog mu bàyyi ko noon tàmbali discours am ku doon jaamu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñàkk nga yàlla ku doon jaamu yàlla mi ngi fi du faatu yenent bi yenente ay yenente ko jiitu woon dañoo faatu mu soog ñëw di yenent dana faatu gannaaw bi nag suñ ko faatee wala yàlla faat ko ba tax ngeen delluwaat nekk ca la ngeen nekkoon euh, du la du wàññi yàlla dara waaye nag yàlla dana fay ñi nga xam ne ñoo koy sant dina dina fay ñi nga xam ne ñoo koy sant kàddu googu bi ko Seydina Omar déggee Ibnul Musayyib nee na Seydina Omar nee na ya àttanatul yaramam àttanatul yaramam tànk yi àttanatul yaram wi noonu la ne groupe ci suuf daal di sukk soog di gëm ne nag Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatu démb foofu la nu jeexale woon léegi nan la jaayanteeg Seydina Aboubacar gannaaw bi xibaar bi rotee ñu waajal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam balaañ koo denc faaw am koo xam ne nag moo koy wuutu waaw ndax li waral yéex a denc gi faatu na altine dencuñ ko talaata dencuñ ko ba guddi àllarba lañ ko denc euh, version am na ci min dahshatin axaru dafna nabiyi wal istixaalihim man yuwalla kalla amrihimi Cheikh Al ma Malick tudd na ci ñaari cause yu sabab ñu yéex a denc rasulullahi sallallahu alayhi premièrement mooy tarug ngëlëmte tarug ngëlëmte kenn ku nekk jaxasoo goo jaxasoo sabab na ñu yéex a denc yenent bi sallallahu alayhi ak kan mooy wuutu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yi daal bokk na ci cause majeure yi ci tax ñu yéex a denc yenent jaxasoo nañ kenn xamatul foo jëm muy benn ñaareel bi mooy balaa ñoo denc yenent bi faawu am nag ku ko wuutu ñaari yi bokk na ci li tax ñu yéex ko denc discussion yu bari am na ca ba ñuy waxtaan daaw su ngeen delloo ci waxtaan wi ci Seydina Abubakrin Siddiq radiallahu taala anhu indi woon nañ ci yu bari ci yooyu nga xam ne ni tiraillement bu métti amoon na ci diggante saxaaba yi Euh, ku nekk samp sa candidat ne mooy wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa waaye mujj gi majorité bi mi ngi jëm ci Seydina Aboubacar te Seydina Omar bokk na ci ñi àndoon ak Seydina Aboubacar in Siddiq radiyallahu taala anhu Anas ibnu Malik nee na dégg ba xutba euh, Omar bu mujj bi mu toogee ca kaw minbar ba mu ne loolu bisu talaata la yonent bi dafa faatu altine talaata ma dégg Omar di xutba toog ca kaw minbar ba daal di tàmbali ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kenn waxul Seydina ngi toog ñëpp a ngi toog ñëpp noppi kenn waxul waaw la waxee ne kuntu arju an yaisha rasulullahi rasulullahi sallallahu alayhi xata yadburuna li ñu yéene woon de mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dundandoog nun ba ñun ñëpp ñu faatu ba ko fi lii daal lañ yéene woon lii lañ yéene waaye fa in yakku muhammadun qad maata fa inna allaha taala qad jaala bayna adhurikum nuuran tahtaduuna bihi bima hada allahu muhammadan sallallahu alayhi wa waaye gannaaw yàlla def na li mu def biir na ne yonent bi sallallahu alayhi wa na na ngeen xam ne yàlla tegal na leen ci seen kanam leer goo xam ne nii di ngeen ci mën a gindeekoo ci ni yàlla ginde xeet wi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa inna aba bakarin wa inna aba bakirin saaxibu rasulillahi nay ni fa innahu awla almuslimina bi umurikum aboubacar mii toog keroog bi yonent bi sallallahu alayhi di ñëw ci dëkk bi di ñëw ci dëkk bii di madinatul munawara jugee ko màkka amul kenn ku àndoon moom ku dul moom moom la yàlla ne saanis nay ni ki ñaarel ñaar ñi ki ñaareel ñaar ñi moom la moom sey Seydina Aboubacar ñaareel ñaar ñi yonent bi kenn ki Babacar ay ñaareel ne ko bàyyi alaaji ibrahima saaxo radiallahu anhu daan daan waxe waxee yeneen bay première Babacar ay deuxième mu ne ko moom la kon nag moom mi nga xam ne bi yeneen bi ñëw ci dëkk bi amul kenn ku am maqaama ànd moom kudul moom kii daal moo gën a yay ci seen mbir yéen jullit ñi kon li ma leen di yégal mooy fa quumu fa baayauhu fa quumu fa baayauhu jug leen jug leen ngeen jaayanteeg moom Seydina Aboubacar mi ngi toog Seydina Omar ak yëkkati kàddu googu jug leen ngeen jaayanteeg moom bi kàddoom di daanu ñëpp jug fekk wa kaana taifatun minhum qad baa qad baa qad baayacuuhu qabla dalika fi saqifati bani saaida wa kaanat baycatu l aama ala al minbar fekk am na ñeneen ñoo xam ne nii ña nga jaayante woon moom te fa ñuy tuddee saqifatu bani saa'ib falañ lañ jaayante woon ak seen Abubakar xaat moom ne ko yaa ñu day pour doon xalifa yenent bi waaye nag validation jaayante bi talaata la am te ki ko nga xam ne nii ñu bari posé woon nañ ko ne candidat moom mu reculer dellu ginnaaw ndax am na ñoo xam ne nii Seydina Omar lañ sampoon pour bëgg mu jiite Seydina Abubakar euh, am ñu ko samp bëgg ñu jiite kon boo amee candidat bu ràññeeku mel ne Omar bu delloo ginnaaw bu amee candidat boo xam dañ ko samp aw nit bëgg mu jiite bu yëkkatee kàddoom ne kii yee yey pour mu jiite daldi di ñeneen ñi sampoon seen candidature yëpp mu ne yàlla lank na Rasulullah lànk na kenn di jiite nit ñi ku dul Abubakarin Siddiq radiallahu taala anhu ah bi mu waxee kàddu googu nag ñi jaayante woon ak moom yëpp jóg ñi jaayante wuloon moom ñëpp jóg ñu daal di ko jaayan ñu jaayanteeg moom ca kaw min barba moom Seydina Abubakarin Siddiq radiallahu taala anhu Zuhri nee na jëlee nañ ci Anas ibnu Malik mu ne dégg naa Umar ibnul Xataab bis booba mag naan Abubakar yéegal ci kaw minbar bi yéegal ci kaw minbar bi mu ne fa lam yadal bihi xata saida al minbara fa baayaahu nnaasu amma dañul di wax ak moom loolu jugal nga yéeg ci kaw minbar bi aboubacar di teen deefal mu topp ko naan ko jugal nga yéeg ci kaw minbar bi aboubacar di teen deefal bàyyiwu ko ba Seydina Aboubacar yéeg ci kaw minbar bi nit ñëpp jaayanteeg moom loolu boo demee ci saywul Buxaari euh, ca ahkaam baabul istixlaaf dinga nga fa fekk xadis boobu noonu li kon gis nga Seydina bakar jaayante gi jullit ñi jaayanteeg moom ki gën a ràññeeku taxaw ngir ñëpp jaayanteeg moom mooy Seydina Omar ibnul Xataab radiallahu taala moo tax bi mu falo bees li mu njëkk a def moom Seydina Abubakar bokk na ca mooy fal Omar ibnul Xataab mu nekk juge bi waaw mu nekk juge bi nga xam ne mooy àtte julli ñi te moom la njëkk a fal mu nekk ab juge ci lislaam koy atte mooy premier juge bu nu fal ci lislaam muy àtte moom Seydina Omar ibnul Xataab radiallahu taala moom la njëkk a fal mu nekk juge buy àtte ah léegi nag fal nañu Seydina Aboubacar mu ànd ak moom ci xilaafa gi gunge ko dëgëral ko nekk juge bi àtte taxaw taxawaay bu dëgër moom Seydina Omar ba proposition wu dajale alquranul karim moo ci ko ci convaincre dajale alquranul karim moom moo ci convaincre Seydina Aboubacar du ñàkk danañ ci ñëwaat bis xarbu yamaama bi mu weesoo ñu bari ci tàngi faatu ñi mokkaloon alquran mu ñëw ci Seydina Abubakar wax ceeg moom ne kat lii bu continuer téere bi mën na dem ba sooxe kat nañu jéem a seet ñi mokkal téere bi ñu génnee li ñu mokkal li ñu dajale woon ñu bind ko def ko mu nekk ci benn kaamil mu nekkoon ndax dañuy def lu yenent bi defutoon Seydina Omar nee na ma xam ne yaramu Abubakar dafa tànn tàng ma bàyyi noonu delluwaat toog ba jëmi jamono ma ñëwaat dañu ma di waxtaan ak moom ba yàlla yaatal dënnam ni mu yaatalee sama dënn loolu moo sabab am na lu ca topp yu bari ba tax ñu dajale alquran tey mu nekk ci kaamil bii mu nekk loolu bu amee grâce à Seydina Omar ibnul Xataab radiallahu taala anhu léegi nag bi nga xamee ne nekk na xalifa moom Seydina Abubakar bay génn àdduna Seydina Omar xilaafaam Seydina Aboubacar moo ko togg bam ñor laataa muy faatu pour wane ne moo koy wuutu waaw wala bi mu faatoo xëccoo amul kan mooy wuutu Seydina Aboubacar moom laataa muy faatu la proposé samp ki nga xam ne mooy Seydina Omar Ibnul Xataab Ibnul Jawzi Ibnul Jawzi boo demee ci téeréem bële mu tuddee almuntazam fi taarix fi taarixi l umami wal muluk mi ngi fay nettali ne bi mu demee ba am xalaatu Seydina Omar mii moo nar a doon ki koy wuutu dafa woo Abdurahman ibnu Awf ne ko dama bëgg nga wax ma loo xam ci Omar ibnul Xitaab ngir mu wuutu jullit ñi gannaaw ma fi bàyyee ko mu ne ko ah, xalaat bi nga xalaat di xalaat gënu ko waaye daal benn jikko laa seetlu ci moom mooy fii xilsa dafa tàng lool loolu daal moo ma jaaxal waaye daal góor gënu ko xalaat bi nga xalaat xalaat gënu ko rafet Seydina Bakar ne ko tàngooram bi yëpp xam naa li ko indi mooy li annahu yaraani rafiqan daf ma gis ma nekk nit ku ndànk nit koo xam ne nii dama sedd dama dal waaw waaye mbir yi bu tegoo ci loxoom tàngooram bu bari dana wàññeeku kon loolu moom sama xel dal na ci ne tàngooram bi du problème pour mu war a jiite jullit man dama bindoo nii ma mel nii sedd moom bu tàngul kon mbir yi dana am lu ci sooxe moo tax mu nekk ku tàng waaye nag loolu yëpp bu demee ba toog fa tey bii ma toogee tàngoor woowu lu bari dana ci wàññeeku bi mu wooyee abdurahman ibnu awf laaj ko xalaatam ba noppi woo uthman ibnu affan ne ko axbir nii an omar dama bëgg nga wax ma li nga xam ci omar mu ne ko yaanu gën a xam omar mu ne ko du loolu moo tax aba abdallah ma woola dañ ko daan wooye uthman ibnu affan bàyyi abdallah mu ne ko du looloo tax man li ma xam ci moom xam naa ko ci moom yow laa wax nga wax ma li ma xam li nga xam ci moom mu ne ko ah xam naa ne daal moom li ma xam ci moom mooy xam naa ne li mu ëmb maanaam jikkoom li nëbbu moo gën fuuf li feeñ ci moom ndax di feeñ ci moom tàngoor wi la nit ñi gis waaye jikko ju rafet ji ci moom loolu moo ëpp doole moo gën fuuf li feeñ ci moom ni nit ñi di ko gis muy tàngoor wi tamaa ngi lay wax ne wa annahu laysa fii naa mithluhu ku mel ni moom amul ci nun amul ku mel ne Umar ibnul Xataab Seydina Ousmane moo wax loolu Seydina Bakar ne ko yarhamukallah yàlla na yàlla yërëm Mm-hmm. mu ne ko wallahi soo ko soo ko bàyyi woon bu fekkoon ne waxoo ne doy nanu doy nanu pour jiite leen du ma la def noonu mukk du la ci mere soo waxuloon li nga wax ci moom nii wax safaan bi wane ne mënuñoo jiiteeg yu ni mel maa ngi waat ci yàlla ne du ma la mere ndax maa leen woo concertation lay def waaw damay concerté wu ak yéen mu ngoog ki la ko wax ne ko indil ma big ak nga bind Seydina Ousmane dem indi big ak fooy Seydina Abubakar ne ko bindal bismillahi rahmaani rahim mu bind bismillahi rahmaani ne ko neel lii mooy li nga xam ne Abubakar ibnul Quhaafa moom la dogal ci mujjug dundam dundam gi nga xam ne mi ngi jeex mi ngi génn àdduna te moo nekk njëlbeenu wàccuwaayam ci àllaaxira kër googu nga xam ne nii ku gëm yàlla ku weddi woon yàlla danga nga ko fa gëm kàccoor bi dana fa amug wóolu ne liñ ko doon wax yépp dëgg la ki daawul wax dëgg dana fa wax dëgg kër googu noonu le laay waaja toxu jëm fa waaye maa ngi leen di yëgal ne wuutal naa ci yéen ñi bi mu waxee loolu rek daal di xëm bi muy wax ne wuutal naa ci yéen laataa Seydina Ousmane di bind rek mu daal di xëm bi mu xamee Seydina Ousmane bind ne inni staxlaftu aleykum Omar ibn al-Khattab wuutal naa ci yéen Omar ibn al-Khattab Seydina Abubakar bi mu ximmili ko ne ko jàngal ma li nga bindagum mu jàng lim bind ba yegg ci wutal naa ci yéen Umar ibnul Xataab Seydina Seydina Aboubacar daal ne Allahu akbar waaw daal di kàbbar ne Allahu akbar mhm. Mhm. mu ne ko xam naa li tax nga def lii da nga ragal nit ñi wuute sama ginnaaw su fekkoon ne sama xëm bi ximmi likuuma ci ba faatu moo tax nga bind ne wuutal naa Omar ibnul mu ne ko waaw looloo tax ma bind ko ndax gannaaw yëg naa ne def nga concertation yi nga war a def diisoo nga ak ñi nga war a diisool te wax nga ma proposition bi am naa idée bi moo tax bi nga xamee ma ne xam naa li nga bëgg naa ko bind même boo ximilikowul woon jaare fi faatu it lii laay bind te ci yow la bàyyeekoo bu boobaa mu ne ko jazakallahu xayran an il islaami wa ahli yal na yàlla fay la wuutu ci mboolem waa lislaam ak ñooñ lislaam wutu ci lislaam ak ñooñ lislaam aboubacar daal di saxal loolu radiallahu taala anu ko digal ne ko na dem ci nit ñi mu liiral leen li nga xam ne moom la bind waaw bi loolu amee Seydina Ousmane daal di génn dem dajale nit ñëpp daal di leen jàngal lettre bi Seydina Aboubacar bind xamal leen ne seen waa ji kat nee na mi ngi nekk ci tàggatoo fanam yu mujj la nekk di dund ci àdduna di dëgmal fanam yi njëkk ci alaaxira Aboubacar nee na Omar ibnul Xataab a koy wuutu ah am ngunum ngunum gu ci suuf am ñu tàmbalee ngunum ngunum yi Omar ibnul Xataab mooy wuutu Aboubacar hey am ñu def délégation dem seeti Seydina Aboubacar fekk mi ngi tëdd yaram we ngi diis ñu ne ko boo demee ci yàlla lan nga koy wax yow aw bakar su la laajee kan nga bàyyel jullit ñi ñu mu yilif leen nga ne Umar ibnul Xataab te wa anta tara xilzata yaa ngi gis tàngoor wi nekk ci moom naqari deret gi nekk ci moom nga gis ko ba noppi di ko jiital pour munuy jiite boo demee ci yàlla loo koy wax Seydina Abubakar ne jàppoo leen ma ma jóg jàppoo ma ma jug mhm. ma leen ndax ci mbirum yàlla ngeen may tiitloo perte na te sooy na koo xam ne yóbbaloo na seen mbir mi tooñ kooku perte na kooku sooy na dama ne wuutal naa ci yéen ki gën ci yéen wuutal naa ci yéen ki gën ci yéen laa def ko mu jiite leen waaw ki gën ci yéen laa jël tànn ko ngir mu jiite leen ci la woolu Seydina Omar mu ñëw mu jox ko ay ndénkaane yim koy dénk waaw ñaan passation de service lañ ko yox defe naa Adja Mama waaw sama professeur defe naa passation de service lañ koy wax mu def koog Seydina Omar ibnul Xataab ndeysaan mu def ko ak Seydina Omar Seydina Ali bun Abi Talib radiallahu anhu nettali na loolu li ñu njëkk a wax ni nettali bu njëkk bi Ibnul Jawzi moo ko nettali ci almuntazam fi taarixil umumi wal fi taarixil fi taarixil umami wal muluk Ibnul Jawzi nettaleem boobu noonu la Ibnul Asir génne na ko ci Asadul Xaaba ñeenteelu xaaj ba xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar. ibnu hajar al asqalaani génne na ko ci almatalibul aaliya numéro quatre mille trois cent treize ba noppi ne wéeruwaayam lu wér la maanaam nettali bi lu wér la ibnu hajar ci almatalibul aaliya boo demee ci zawaayit abdullah ibnu imaamul ahmad boo demee ci zawaayidam ba Euh, mi ngi nettali ne aliyun bun abi talib radiallahu anhu nee na bi sayidna abubakar di bëgg a faatu dafa gis ne omar mooy ki attan xilaafa gi bu fekkoon ne mbir yi yaama neex la walaw kaanan mahabatan la athara biha walada su fekkoon ne mbir yi yaama neex la kon seydina abubakar am na doom doomam lay jël mbir yi jox ko ko waaye dafa diisoog jullit ñi ba mu diisoo xalaat yi wuute na fa minhum man radiya wa minhum man kariha am na ñu nangu am na ñu nanguwul waaw am na ñoo xam ne nii dañ ne ko ndax da ngay nuy wuutalal nit ku tàng te yow nga nekk fii dund looy wax sa borom boo demee ci moom mu ne leen su ma demee ci yàlla dama naan ko yàlla jiital naa jiital naa koo xam ne nii moo gën ci sa njaboot gi loolu laa koy wax waaw nee na ci la jiitalee Umar ibnul Xataab mu jiitañu nee na mu am taxawaay bu mel ni ba Seydina Abubakar amoon laa nunkiru minhum minhu shay'an amul dara luñ ko meree amul dara luñ ko critiqué naarifu ziyadata kulla yawmin fi ddin wa dunya fataha allahu bihi l ardin wa masara bihi l amsar laa taaxuduhu fi llahi lawmata laa'im albacidu walqaribu sawaun fi ladli walxaq wa daraba allahu bilxaqi ala lisaanihi wa qalbihi waaw Mm-hmm. mu ne bi amee ñu tiit am ñu ñeme mu ne bi ko yàlla falee ñëpp seen xel dafa dal ndax dañoo gis mu taxaw taxawaay bu mat sëg ba ñu yëg ne diine ji yokku na sunu wàllu àdduna ñu yëg ci yokkute mu ubbi suuf suuf euh, toj réew yi dugal fa lislaam waaye nag ci mbirum yàlla faalewu ci ku ko yedd ku jege ku sori ñoo yem ci moom ci maandu ak dëgg ku jege ku sori ñoo ci yem yàlla feeñal ci làmmiñam ak xolam dëgg ba bu daan wax danga naan ak dal mooy addu ci làmmiñu Seydina Umar ibnul Xataab danga naan benn malaaka moo nekk ci kanamam di ko wan yoon di ko wax fan lay jaar ndax xalaatam yu jub tërëlinam yu jub lu mu def rek ñëpp ne gongo daa mel ni daa am malaaka mu ne woon ci kanamam di ko traceel yoon wi muy jaar loolu Seydina Ali ibn Abi Talib radiallahu taala anhu moo ko wax is kay is kay is kay ah mi ngi noonu kon ñu yem foofu ba ëllëg ak jàmm incha allah kon gis nga gis nga ne ni nga xamee ne noonu la taxawee woon tànn Seydina Aboubacar Seydina Aboubacar tamit noonu la taxawee tànn ko moom Seydina Omar waaye du tànn yaama neex de déedéet ndax bu doon yaama neex ni ko Ali ibn Abi Talib waxee doomam lay tànn waaye dafa tànn ki attan yan wi mu teg ko ci kanam moo tax ba mu ko tegee mu def résultat bu rëy bi mu def lu bari ci l'islam Seydina Omar ibn al-Khattab moo ko réalisé lu bari ci xilaafaam lu bari ci xilaafaam la tëralee tëralin yoo xam ne ba léegi mi ngi des jullit ñi di ko jëriñoo tabaarakallahu bokk na ci rek waxoon naa ko ma del ci waat ci koor gi ñu nekk dajaloo ci jàkka yi di naafila loolu ci lim bàyyeel jullit ñi ci liggéeyam bu rafet la bokk moom Seydina Omar ibnul Xataab mhm. bu ko defee yàlla ñu ko yàlla fayal yiw yàlla ñu ko yàlla fayal yiw yàlla ñu ko yàlla fayal yiw amirul muminin omar ibnul xataab mbokk yi ñu ñëw ci xel xelu xel xelu tey ci benn sagesse lay wax benn sagesse benn xikma dañu laaj kenn ci boroom xam-xam yi ne ko ban sagesse boo jàng ci sa adduna moo la gën a yéem ci sa dund ban sagesse moo la gën a yéem mu ne jàng naa lu ëpp juróom ñaar fukki at jàng naa lu ëpp soixante-dix ans waaye gisuma sagesse bu gën a rafet boo xam ne ni Ibnul Jawzi rahimahullahu taala moo ko wax ñu ne ko ban la mu ne mooy wax ji mu wax ne inna mashaqata inna mashaqata mashaqata taa tadhabu wa tabqa sawaabu sawaabuha coonoy coonay topp yàlla day dem yool bi des coonay topp yàlla day jeex yool bi des du jeex wa inna lazata almaasi wa inna lazata almaasi tadhabu wa yabqa iqaabuha bànneexu mooy yàlla day jeex mbugal mi des fa laa ilaha illa allah kon kun ma allahi wala tubaali àndal ak yàlla foo manti nekk bul faale dara wa mudda yadayka ilayhi fi fi dulumaati layaali tàllal ko sa loxo bu guddi yi lëndëmee këriis këriis wa qul yaa rabbi maa taabati dunya illa bi dikrik ne ko yàlla àdduna bi mënu la neex lu dul ñu lay fàttaliku di la bàyyi xel wala al axiratu illa bi afwik al axira mu dul munul neex lu dul sa njéggal wala al jannatu illa bi ruyatik ajjana munul neex lu dul ñu gis la saafix wa saamix saafuwantel ak nit ñi te nga baalonteeg nit ñi wa dail xalqa lil xaaliq bàyyil ak ni bàyyil nit ñeeg seen boroom fa nahnu wahum raaxiluun nun ak nit ñëpp dañuy laxas wuy ji yàlla ifaalil xayra mahma stasgartahu mahma stasgartahu defal lu baax ak loo ko xeeb-xeeb fa innaka laa tadri ayu xasanatin tudxiluka aljanna xamoo ban ci yiw yi moo lay dugal àjjana mu ne ko daal jàng naa soixante-dix ans mais wax ji gisuma wax ji ko gën a riche ci li ma jàng yépp muy ay xikma mooy topp yàlla lu métti métti muñal ndax coono bi day jeex tuyaaba ji des des fa mooy yàlla lu mu neex neex bàyyil ndax bànneex ba day dem mbugal ma des fa àndal yàlla te bañ a faale dara tàllal ko say loxo bu lëndëmee këris naan ko yàlla àdduna munul neex lu dul yow ñu lay fàttaliku alaxira munul neex lu dul sa njéggal ajjana munul neex lu dul ñu gis la baalonteel àq ak say mbokk saafu wanteel ak say mbokk jullit bàyyil nit ñeeg yàlla mi leen bind ta nga xam ne yow ak ñoom ñëpp dangeen di dem wuy ji yàlla defal lu baax lu mu tuuti tuuti bul ko xeeb ndax xamoo ban yu baax yi ngay def moom la la yàllay nangul ba dugal la ci àjjana iskay mm, allahu akbar iskay iskay iskay lu am solo la lu ama am solo la lu ama am solo lu mat bàyyi xel yan na yàlla defal nu dégg topp defal leen ko neskiis ñu ñëw ci suukaru koor incha allah balaa ñoo ñëw ci naafil ak bis bi yëkkati jataay bi mbokk yi suuratu duha moom it ci saar yi bari njëriñ la bokk waxoon nañ leen njëriñu suuratu yaasin suuratul mulk suuratul waaqia tey ci suuratu duha la ñuy ñëw njëriñ ci indi zeynul abidin al bikri moo ko in jàngale zeynul abidin al bikri rahimahullah nee na képp ku taqoo di jàng suuratu duha suuratu ku taxoo di ko jàng quarante fois wa duha wa leyli ida saja ma wadaaka rabuka wa ma qala wala al axiratu xayrun laka min al ula topp ko ba saar wa jeex wala wa duxee wa leyli ida saje ma wadaaka rabuka wa ma qale wala al axiratu laka min al nga topp ko ba saar wi nga def ko quarante fois ñeen fukki yoon ba man guddi ba man ñeen fukki guddi muy ñeen fukki fan quarante jours quarante fois ba mat quarante jours waxtu woo noppee ci quarante nga ñaan-ñaan gi allahumma allahumma yaa ganiyu yaa mugni aghnini ghinan laa axaafu bacdahu faqran wahdinii fa innii daallun wa allimnii fa innii jaahilun allahu akbar soo mënul ci arab bi nga ñaan lii ci wolof yow sun borom yow mi woomal tey woomalaate yal nga ma may koom-koom boo xam ne dootuma ragalati ak ñàkk gannaaw ba yàll nga ma gindi dama réer yàll nga ma xamal dama réer waaw yàlla nga ma gindi dama sànku yàlla nga ma xamal dama réer noonu la ñaan gi di tekki ci làng boo dégg nga wax ko ci yow yàlla mi woom tey woomalaate yàlla nga ma may koom-koom boo xam ne dootuma ragal ñàkk ginnaaw bi yàlla nga ma gindi dama réer yàlla nga ma xamal gindi dama sànku yàlla nga ma xamal dama réer aghnini ghinan laa axaafu bacdahu faqra wahdini fa inni daalun wa allimni fa inni jaahilun zeynul aabidin nee na képp ku taqoo lii di ko def yàlla dana la may xikma dana la may sagesse kemtalaayal ni nga sellalee njàng mi ak kemtalaayal ni nga ca farloo waaye ñaan gi li muy wundaale dégg ngeen ko mooy koom-koom koom bu mu jiital gannaaw ba nag xam-xam bu la yàllay xamal waaw ndax am na loo xam ne du jàng koy maye mhm. di ñaan pédagogie pédagogie du jàng koy maye mën nañ cee former nit ba tàyyi te du ko am nit mën na ko bañ a defee bañ a defee benn école formation yàlla may ko ko aha sagesse xikma wax ju am njëriñ yooyu yàllaa koy jox ku ko soob ko defee mbokk loolu moo doon suukaru kooru tay bi yàlla barkeel ko ñu ko ko yàlla nangu incha allah tabarakallah mbokk yi naafila tey gi ñaari rakka lay doon rakka bu ne fatiha benn yoon sabbisma rabbika laale inna anzalnaahu fi laylatil qadr qul huwa allahu ahad qul audu bi qul audu bi rabbin naas bu ci nekk trois fois bu ci nekk ñetti yoon sabbisma rabbika laale inna anzalnaahu fi laylatil qadr qul huwa allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin naas bu ci nekk ñetti yoon loolu mooy doon naafila tey di alxames guddik àjjuma bu nu yendoo euh, àjjuma wala alxames bu nu yendoo ba ngoon jot guddik àjjuma wala àjjuma kon bu nu yendoo ba ngoon jot guddik samedi naafila gi day nekk ñeenti rakka raka bu ne fatiha benn yoon euh, iza jaa nasrullahi ba mu jeex juróomi yoon qul huwallahu ba mu jeex juróomi yoon ajjuma guddik samedi bu nu yendoo ajjuma ba ngoon jot guddik samedi <coughs> naafila gi day doon ñeenti rakka rakka bu ne fatiha benn yoon iza jaa nasrullahi ba mu jeex cinq fois juróomi yoon qul huwallahu ba mu jeex cinq fois juróomi yoon buñ ko defee yàlla ñu ko yàlla nangul jërë ngeen jëf ci déglu bi nag dëkk waaye waru waaye koddaay yàlla yombalal na ko fan bu gudd waan ak wér-gu-yaram yal na yàlla defal na ko yal defal sunuy affaire yokk suñu chiffre d'affaires may nu yaram bu sedd bu ànd ak xol bu sedd walhamdulillahi ala tamaami nasaluhu xatma ala al islaami xafidana allahu min al afaati bi xurmati al qur'ani wa salaati subhaanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk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 رمضان فيك عبادة وصيام فدموعنا بخدودنا رقراقة تسقي قلوبا زانها إسلام تسقي قلوبا زانها إسلام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام